mbokk yi dal leen ak jàmm kawteef dëgg si quartier Medina Fall si diwaanu Thiès les échos xëy di xibaar naan gone gu jigéen gu am ñaar fukki at ak juróom tuddoon Mariama Diagne la ñu faat ka ko faat nag buñ sukkandikoo si yéenekaay bi weesul kenn ku tudd Assane Gueye mi nga xamante ni bii jàpp nañu ne moom si boppam da doon bëgganteek moom njëkk moom mii Mariama Diagne di am beneen borom kër li waral mu faat ko nag moom Assane Gueye mu jóge si diwaanu Maroc am fanweeri at ak juróom moo di dafa diggoon ne Mariama Diagne mii beneen góor gum sëyal gurul moom moom dina lépp bakkanam libération xëye googu li xibaar ak tiislu gi nga xam ne ànd naak moom nag ci diwaanu Thiès la xewee ki nga xam te ni bi moo di Mariama Diagne ginnaaw bi nga xam ne nag faat na ko moom Assane Gueye ci boppam nag mu ngay wax takk dere lan moo waral mu faat ko moom nag mu ngi naan dafa bëggoon ba dof ki nga xam ne moo di Mariama Diagne te diggoon na ko it ne ko keneen ku mu sëyal ku dul moom dina ko faat respecté wul kàddoom moom mais Mariama Diagne waaye moom la mu digge woon moom la def faat na Mariama Diagne ginnaaw bi nga xam te ne bii moom sëy na ak keneen moom nag yéen kaay bi naan dafa jóge Maroc rek te dara taxul lu dul ñëw fii faat ki nga xam ne moo di soxna si nga xam ne moo di Mariama Diagne ginnaaw bi nga xam te ne bi nag moom victime bi Mariama Diagne porté woon na plant ginnaaw bi nga xam ni menacé woon na ko ne dina ko faat ni ko faate nag jam na ko lu toll si juróom-ñeenti paaka yoo xam ne tax na mu faatu kii tig yéene kaay naan ëpp na ko koy fukki paaka ak juróom-ñaar la ko jam muy jam-jam yoo xam te ni tax na ki nga xam ne moo di soxna si Mariama Diagne nekkoon étudiante génie civil si université bu Thiès daal ñàkk bakkanam ginnaaw jam-jam yu métti yi nga xam ni jam na ko loolee nag am si samedi ji nga xam te ni ëllëg sa lañ doon màggal ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi bi la tiis amee sa diwaanu Thiès kawteef bi Assane Gueye des si diwaanu Thiès sa Medina Fall nag Vox Populi xëyee ko naan fukki paak ak juróom-ñaar la jam ki nga xam ne moo di Mariama Diagne étudiante génie civil ba ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xam te ne moom mi def mbir mi sax Assane Gueye waa koñ ba bëggoon nañ koo faat dóor yu métti lañ ko doon dóor police moo si mujj wàlle tax ba moom mi faatuwul soxna si Assane nag moom jàpp na ne doomam ji dafa àndut ak xelam te it artu woon na ki nga xam ne moo di Mariama Diagne naan na bàyyi doomam ji ndaxte moom wérul tragédie de trop la ko enquête yéen kaay jàppee ginnaaw bi nga xam te bii moom gën a gu jigéen ga Mariama Diagne ñàkk na bakkanam si paaka yu métti yi nga xam te ni bii jam nañ ko ko atan ngay nekkoon ku ko bëggoon nag te bëgg ko seq keneen tax mu daat koy mujjee faat moom mi di Mariama Diagne ginnaaw bi mu amee beneen boroom kër li si gën a doy waar nag moo di soxna si dafa wannoon lort ba toll si ñetti weer ñu daat koy faat ginnaaw bi nga xam te ni bii menacé woon nañ ko yaayu Mariama Diagne mi ñu faat nag moom ngay wax naan doomam ji menacé woon nañ ko ba mujjoon sax yóbbu woon nañ plainte si kanamu takk der yi ngir mbir mi ñu teg ko mën a saafara am na nag leneen lu laxas si ginnaaw buñ sukkandikoo si l'observateur dafay mel ni trahison am na ci maanaam ñetti millions yoo xamante ni bi moom mi Assane Gueye joxoon na ko soxna si di Mariama Diagne moom it mu bàyyi ko fa yëpp nag tax Assane Gueye mer ba futt mujjee faat ki nga xam ne moo di Mariama Diagne ginnaaw ba nag buñ sukkandikoo si yéene kaay bi nga xam ne yaatal na ko si xët juróom-ñeenteel naan ki nga xam ne moo di Assane Gueye laajoon na xaalisam Mariama Diagne ngir mu fay ko ginnaaw bi ñu si waxtaanee borom këram xër-xërloo am si ñoom ku nekk yëkkati sa ab dënn ginnaaw ba nag la mu mii Assane Gueye maire ba futtu fekki Mariama Diagne ci biir këram daat koy jam ay paaka ba mu faatu muy ab mars boo xam ne moom la waroon sargal jigéen ñi waaye dafay mel ni faatu yu bëri si loolu laa turbine yéen kay xëye ko naan mars mortel ginnaaw bi nga xam ne Mariama Diagne faatu nañ ko foofe si diwaanu Thiès yéen ñeenti soxna it faatu nañ ci dem géeg dikk gi si yoonu Fatick wa moom kay a Koumpentoum ak fi nga xam ne moo di Fatick nekk week-end boo xamante ni bii métti woon na lool xalaas ubbilaas xër wu njëkku yéenekaay bi nag ñu ngi siy dellusiwaat si coow li dox diggante Diop Iseg ak Dieynaba Balde mu nekkoon seen petit gàlle yéenekaay bi naan ab scandale la boo xam ne nag li si laxasu bëri na lool Diop Iseg nag bi nga xam ni bi jiñ nañ ko ne dafa yegg si kaw gone gu jigéen gi ba mu wan lor moom si boppam nag teg nañ ko loxo mu ngi garde à jamono ji waaye am na ay enquêtes yoo xam ne ubbi nañ ko si ginnaaw ngir yër mbir yi dëgg lan moo si lalu Les Échos naan ko loxo police nag mu ngay enquête bu baax a baax si at ki nga xam ne moo di Dieynaba Balde mi nga xam ne ñu ngi naan mineur la fukki at ak juróom-ñaar la am sàmm waaye waaye buñ sukkandikoo seeni kaay bi nag dafa am lees waxul dafay mel ni xale bu jigéen bi yey na ba balde dafa def jugement maanaam am na lu toll si ñaar fukki at waaye dafay mel ni kayitu juddoom ñu ngi ko defar 2011 loolee moo fës si xët bu njëkk direct news mi nga xam ne jàpp na ne moom nag moo nekk si ginnaaw mbir yëpp nag dafay mel ni ay bëtam mu ngi ko teg si école am bii di Isaac nag Diop nga ne bi mooy circuler ki nga xam ne moo si nekk nag du jay na ba mi nga ne moom lañ ko tuumaalee ne dafa yegg si kawam muy laaj Dieynaba Balde maanaam am na ñu koy ruux l'observateur moom dellusiwaat lan moo lëkkale Dieynaba Balde ak Diop Iseg mii di yaatal si xëtu juróom-ñaareelam li nga xamante ni noonu la ñuy def ba Dieynaba Balde mujjee si loxo yi ki nga xam ne moo di Diop Iseg li nga xam ne moo si xew yépp nag yéenekaay yi samp xew-xew yooyu yépp nag teewut évidence yéenekaay moom xëy di delloo njukkal ay soxna ginnaaw mars bi nga xam ne moom la ñu génn soxna yi nga xamante ni bi jàpp na ne ay jàmbaar la ñu lool waaye tamit fës nañ lool tamit mi buñ sukkandikoo si yéene kaay bi di évidence li évident dëgg kay moo di Sadio Mané na ñi nga xam ne ñoo di ret si buñ sukkandikoo si record yéene kaay mi naan Sadio Mané dellowaat na couleur ñi nga xam ne ñoo di waa Liverpool ginnaaw seen match bi nga xam te ni bii Sadio dugal na waaye tamit amal passe décisive stade yéene naan Premier League kay dafay mel ni Sadio Mané dellowaat na ñi nga xam te ni moo di Liverpool moo di Alioune Seye 2 jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah.